usine technique numéro 2 mbokk yi moo ñu woon ginnaaw. Ngaylum numéro 2 usine technique jël na Ngaylum Ngaylum numéro 2 mbokk yi moo ngem moo ngem lu weex li usine technique moo ngem moo ngembal vax bi jàppante nañu ñoom ñaar Ngaylum numéro 2 ak usine technique e eh, Ngaylum lu mu bëgg a def. wala boog usine technique lu mu bëgg a def ngay lum da lay zongale bañal. ngay lum numéro 2 ak usine technique usine technique lu mu ko bëgg a def takk na ko da koy caxabal bañ na ngay lum bañ na usine technique ndànk caxabal na ko da ngay daanu daanu nga lu xew. technique abit ni jël am na ku daan waaw waat na la ci diggi géew bi ngay lum numéro 2 usine technique usine technique door na léegi Ngaylum Ngaylum numéro 2 usine mbëkk na ko waaye xanaa bi di gisuñu lii kenn ñemewu koo wax de fi mu toll nii Ngaylum numéro 2 usine technique. usine technique door na léegi. usine technique ngay lum. usine technique ngay lum numéro 2. usine technique dooraat na. ngay lum usine technique. ngay lum te am nga client de. usine technique taxabal na ko da koy daan lay la laa kaay kaay kaay kaay kaay kaay daan na ko jël bu rëy oh usine technique na ko laay lay la laa mbawu bas la de mbawu bas fa daan na usine technique numéro 2. mais si technique li nga bëree lu mu doon. affaire yi man la borom technique bi. nañ ma jox gars yi nag ponkal yi. non yow kay fi mu toll ci ponkal yi nga wax. ñi yëpp mun barke rasulaay nan ma jox ponkal yi maa waaw. ñu naan da nga bëri ñu naan kooba ñu ñëw pour ndax bu ñu naan nii di bëri kooba mi yow yaa ko daan tënkee. waaw. mais nag affaire bi noonu la mbor bu mbor bu ndaw chaque jour daa war a pare. doon nga ma wax ne na avance ñëwee bu avance ñëwee moo ne sama bopp. waxoon naa la ko keroog. nañ ma jox ga gara ak gars rek. mais booy bi est ce que xeebu la woon. non moom damaa xeeb te xamuma. damaa xeeb te xamuma billaahi. ci gars yi rek. nañ ma jox ki teg grand combat bi. grand combat bi nañ ma ko jox. promoteur baa ma grand combat bi. <laughs> ma bu rek ku ci daanu ak ku ci daanu yëpp boo ma ko joxe ma bëri. santal gërëm. Ah? maa ngi bëgg waa Dalifort ñëpp di tamit waa Jaxaaw bu baax a baax di woo nag di leen naan bu ma amatee combat nañu ñëw jàppale ma ndax man amuma jàppale bu ma amoon xoolal lii kese moo ñëw bu ma amoon jàppale mu gën a baax. bilaay maa ngi woo ñëpp di bëgg ñëpp di leen tamit bu baax a baax ah ah a baax a baax a baax di ñaan nag Potignan ah, mu am ndam. maa ngi ko ñaanal bu baax. bilaay waaw noonu la waa tamit merci.